nga beneen euh, question aussi dañu wax affaire grève de la faim bi man chaque fois bu ma déggee grève de la faim ñu ne nit ki yóbbu nañ ko kaso mu ngi def grève de la faim xam nga lu may fàttaliku. Serigne Abdou Lahad Mbacké moo daan wax bi ñu daan grève étudiants yi mu ne grève sa bopp grève sa bopp baax daf ko daan wax. nga gis nit ñi di revenir à de meilleurs sentiments man dama nekk université nekk médiatrice xale yi bu ñu yëngatoo di grève maa daan dem ci ñoom di leen dalal di leen dëfal di fexe ba yëfi daal euh, mm-hmm. euh, mais am na benn étudiant boo xam ne ancien étudiant patron la léegi dafa ma gis mu ne ma professeur fàtte nga ba ñu daan def grève de la faim mm. ngay ñëw ci salle bi fekk ñu ñu sangu ci kaw mat lay ngeen nga wax ñu eh da leen nëbbatu di naan ndox mhm. bu ko kenn gis mais nëbbatu leen ko leen butéel bu ngeen nekkee ba muuru ngeen naan parce que seeni rein day yàqu mhm. dama leen ko daan wax mu fàtte man a fàtte woon naa ko mhm. moo ma ko fàttali effectivement grève de la faim man je trouve que am na yeneen solution yu gën moo tax euh, Ousmane Sonko ak euh, ñi nekk euh, ci prison def grève de la faim dama leen di wax ni il faut que ñoom ñu égoïste ku ci nekk xool sa bopp xam ni danga am lutte une boo war a mëne mm. su fekkee ne mënatoo ko foo dootul am njëriñ. dootul njëriñ kon boo kii nee na la yóbbu na la kaso nga ni ko maa ngi nii. Mm. damay lekk ba nii dem <coughs> damay naan ba ba ba ba ba normal. Mm. ba pare di continuer sama xeex. Mm-hmm. mais boo boo kii. défaite défaite la perte la. <coughs> dafa mel ne yéen da ngeen doon xeex kii daan la. Mm-hmm. kon ba bu kenn nangu ñu daan la. Mm-hmm. kon boobu dama leen ñaan ñu arrêté seen grève de la faim bi. alors toujours ci affaire boobu d'ailleurs ci revue de presse bi damay gis ñu ne bii feebar moo ko dal ah man damay trembler en tant que juriste. di côtoyer ay médecins le secret médical nit bu ko dara jotee kenn du ko jaay ci mbedd mi noonu kii lii ko dal cancer ko dal palie ko dal insuffisance ça ne se fait pas donc euh, la presse ah la presse ngeen di so di sóoraale loolu même mm. avocat bi waaw mais kon kan moo ko publier côté boobu mais c'est l'avocat avocat bi moo ko bon ñoom xam nga <coughs> sama xaritu avocat yi ils font feu de tout bois. ok maanaam bu amee dara dañ koy utiliser pour mu jariñ li ñuy euh, cause bi ñuy kii mais euh, yan saa sax muy dëgg yenn saa yi nag ma ma ma xosi leen tuuti yenn saa yi sax ah xëy na dëgg waaw stratégie rek ah n'est-ce pas mais euh, dama man dama ci sensible ñu ne diw lii ma ko dal ñu koy xoolee ni yow wàññeeku nga <coughs> ma sax dama ci gêné te secret médical droit moo ko wax mm-hmm. li dal nit kenn du ko wasaare nit ñi di ko yëg kenn yoo yoonu kenn waru cee waru cee nekk